inondation euh, dafa nekk loo xam ne depuis 2005 mën naa wax ci la commencé sonal Sénégalais euh, boo xoolee li mu ñëwee en 2005 ci historique euh, ñun ci la ñu jóg parce que dañu jàpp ne chaque citoyen dafa am une obligation su fekkee situation catastrophique dafa am pour réewam mu jóg maanaam taxaw pour faire face ak li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yooyu askan wi dund li ñuy wax la réponse elle est communautaire ñu jàpp ne tey en matière de gestion des risques et catastrophes la première riposte c'est la communauté ñoom ñooy njëkk a jóg ñooy taxaw ñu gis ne tey fi ñu dëkk nit ñi ñu ngi ci ay jafe-jafe kon dafay war avant état ñun population lan lañ war a def ci lañu ñu regroupé parce que boo xoolee au niveau communal tey bëri ay pàcc pàcc ay association yu jóg pour xeex inondation noonu lay demee au niveau départemental dem ba au niveau national te yàlla dogal bi ñu toogee ñun ñëpp ñu xool ne pour ñu mën a xeex mbir inondation faw ñu unir les forces mm. fexe ba nekk dans une dynamique unitaire pour nekk en parfaite collaboration ak état bu Sénégal nekk benn fusible entre état ak population ci la ñu créer plateforme ay as regroupé plus de cinquantaine d' associations yoo xam ne au niveau national. demee mm. ak Kaolack Kaffrine Touba. dites partout partout way mm. donc dans la région de Dakar ak yu mel noonu fu ne lañ am ay répondants donc di liggéey ak association yi nga xam ne tey ñun suñu liggéey du yem rek ci xaar ba nawet ñëw ñu door a jóg mais dañoo am ay xalaat ci li war a xeex inondation parce que tey dañuy organiser ay séminaires wax de ko village des solutions avant l'hivernage opération pré-hivernage bu nawet bi di ñëw lan lañ war a taxawee naka lañ war a def pour que ñun bu nawet ñëwee ñu am nuñ taxawee ñu jël su ñuy xalaat jébbal ko autorité yi ne leen kat ñun jàpp nañ ne ci lii ak nii buñ ko taxawee gëm nañ ne bu ndox mi ñëwee mën nañ am maanaam résultat boo xam ne mën na bañ a andi looloo waral ñu créer plateforme bi parce que dañuy wax ne celui qui ne s'active pas face au problème de son quartier le fera difficilement pour son pays et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est c'est quelque chose boo xam ne ku nekk ci ñun rek booy muy yow mii muy keneen yeneen ci jouer seen rôle mooy invité bi ngeen ñu invité ñu war a waxtaan ci wàllu inondation parce que inondation wax naa la centre historique bi en 2005 bi mu ñëwee ba indi ay jafe-jafe ci la Ablaye Wade créé euh, maanaam déclenché plan Orsec ñu créé plan Jaxaay def ci cinquante deux milliards créer déplacer ay famille yu mel noonu defar ay bassin ak yu mel noonu mais bi nga xamee ne dem nañ ba mu yàgg ñu gis ne toujours le problème demeure problème bi mi ngi fi ba tey le président Macky Sall lu ñëw créer le programme décennal pour la lutte contre les inondations jël xaalis bu de de des des moyens colossaux def ko ci wàllu inondation mais jusqu'à présent aussi le problème est toujours là